maa ngi euh, jël Agifor euh, euh, premier le 12 juillet 2012 mais nous avons pris presque service en 2013 janvier 2013. Nous avons audité Agifor peut-être que nous avons l'air. ne leeru Nous avons audité dinañ am l'air. parce que ni ñuy liggéeyee matukaay yi ñu yore permettre nañu lépp lu ñu bëgg a xam ñu xam ko kon amuñu dara lu ñuy nëbb pare na pour ñu audité ko nañ ko auditer lépp loo xam ne leeru ci ñu génnee ko mosuñu ma reproché dara parce que bi ma ko jëlee dafa nekk si ay difficulté presque dawal nañu lu mat 3 à quatre ans yoo xamante ne mënuñu subvenir à nos besoins moo tax mësuñu man de commité directeur ñu ngi may dégg kenn mësuma ci wax lenn loo xamante ne lu leen leeru dañ leen présenté bilan bi buñ leen ko présenté dañ ñuy encouragé wax ne nañu continuer vraiment aussi dëkk bi ndox mi nit ñi doon plaindre aussi euh, vraiment ku ne gis na ni am na amélioration euh, manque d'eau gëj nañ ko dégg ngay ngeexoo ñu ngi ciy def nag suñu kéemtalaay kàttan ñun euh, changé bureau bi ñun kooku du suñu sort parce que hydraulique moo koy organiser ak le le sous-préfet euh, mësuñu ñu wax nak ni dañu bëgg renouveler ba ñun ñu bañ kenn mësuñu jox ben note né ñu dañu wara def renouvellement bureau té ñun lool du suñuy prérogative du ñun ñoy organiser renouvellement yi. Euh, c'est l'hydraulique moo koy organiser euh, jaaré ko ci le sous-préfet de la commune. loolu lu war la parce que tay bu fekkente ne ñom ñu ngi liggéey ci ndox mi yàgg ci torop nek ci dëkk bi liggéeyal askan bi euh, war na beneen structure bu ñëwé jël leen dox nañ ci nak dox nañ fi fuñ ko wara waxé waxé nañ ko fa fuñ wara war a nañ fa pour que ñi fi doon liggéeyee ñu jël leen ñu liggéeyaat ci ci sen o bi ñëw. lu mel ni SONES parce que SONES mo ñu njëkk visiter bi mu ñëwee euh, bind na lettre euh, maire visé ko ma yóbbu ko ci direction SONES ne won leen ni dañu am ay employé yu am ay CDI am ay prestataire ay ndaw lañu nekk ci dëkk bi boobu ba léegi nag amuñu ci tontu tout récemment aussi bi ñuy tuddee incorporation bi ci biir rapport bi aussi wax nañ ko ci posé nañu problème mu personnel bi ne leen personnel bi fiy liggéeyee ñoom it nañ ñu fexe ñu jàppale ñu que ñu jël personnel bi fi doon liggéeyee kon donc ñu it loolu suñu suwee la.